citoyen yi moom defin bi parce que kenn du ne réew mi moom jël lu tolloog 300 millions ou 400 millions ou 500 millions jëmale ko ci xale yi loolu dañ koy rafetlu xalaat xale yi dañ koy rafetlu mais doxalin bi nañu wax ni que loolu ñu ngi ñaan ministre Mbaye Serigne Mbaye euh, mama Mame Mbaye Niang ak ci gannaaw président Macky Sall ñu xoolaat doxin bi parce que ku ne vacances citoyennes des activités citoyennes daf ci war a nekk mais vacances citoyennes yi moom dafa mel ni. mbiram peccoo ak xaqataayoo kese la te loolu nag man wax dëgg yàlla taxuñoo jóg damay ñaan ñu xoolaat mbir mi jël xaalis bu gën a takk dugal ko ci gën a dagale xale yi jàngal leen la citoyenneté dimbal leen ki ñi nga xam ne demuñu école mais ñu xool nuñ leen di tàggate ci ay affaire yu gàtt wutal leen ay mission li ki des ci xaalis wala ñu koy jox ay artistes ñu jéem ko dugal ci njàngu xale yeeg liggéey yi wutal leen ay ay ay mini projet organiser leen loolu daal laa gën a jàpp ni moo gën a yanu maanaa guddi gu nekk ñu tegal ñu ci télévision bi ay fecc ak ay xaxataay loolu jàpp naa ne école ubbi na waa école moom mi ngi ubbi dégg ma léegi ñaan naa sama mbokku jàngalekat yi parce que man je suis un enseignant pur et dur je fais j'ai fait plus de trente ans ou vingt cinq ans dans l'éducation et la et la formation et j'ai eu l'avantage euh, am naa maa ngi wax wala sax am naa ci euh, ay jéego yoo xam ne def naa ko ci yu baree bari ak ay lijaas yu ma ci bind ak ay kayit yu ma ci bind li may njëkk a woo mooy réew mënuñu ko tabax te jàngaluñu xale yi ak mag ñi njàng moomu nag day lu am solo trop ca ca instituteurs yi ak professeurs yi ma leen di ñaan ñu def trêve trêve bu mat boo xam ne dañu jël engagement fii ba deux mille dix-neuf ñu mën a def la trêve mën a organiser njàng mi ba 2019 jot ñu jéem a jàkkaarloog président won ko nag ne li lañ bëgg pour mu def ko may ñaan président aussi balaa école ubbi na woo leader syndical yëpp defoon na ko sax gaa mais bi pas mu élargir ko boole ci ay ay hommes religieux boole ci yeneen instance yoo xam ne dañ mun nekk témoin ci waxtaan bi ku nekk fa nga jàppoon nga wàññi ci tuuti ndax ñu dimbale suñu jigéen ñi ak suñu xale yi ñu mën a am école yu baax ak njàng yu baax parce que taux de réussite yi ma dégg ci Sénégal daf may dawloo sama yaram soo demee réew yi ñu wër ak réew bitim réew 80 pour cent nit su ko amee dañ naan taux bi baaxul yoo xam nga ci dara ñu dem ba Sénégal suñu amee pour cent 25 pour cent ñu kay ndamoo loolu wax dëgg yàlla doy na waar rax ci dolli nag ñu gën a orienté njàng mi ci mbirum xam-xam yoo xam ne day nekk affaire science technologie mbéy ak yooyu. ndax xale yi mun a am ay baccalauréat scientifique ndax ëllëg ñu mën a am ñoo xam ne day mën a rejoindre université technologie yi nga xam ne ñu ngi koy bëgg a def ci Sénégal loolu nag dafa laaj ci njàng yu ndaw yi ñu tàggat jàngalekat yi may leen ñoom ñu def trêve ñu fay leen seen xaalis yi nga xam ne ameen nañ leen ko liñ ci mënul ñu waxtaan ak ñoom ñu muñ ñu def ko ci ba loolu jaar ci yoon. waaw ñun kay dañ leen gërëm d'abord Assane Niang ak waa Cité Lamy yëpp jigéen ñi xale yëpp yi nga xam ne dañoo jóg tey mobiliser wu ci taw bi parce que lii ko gis jox ñu leen ay t-shirt jox ñu leen ay 1000 francs ñu dugg ci kaar ñi fi toog ñëpp ils l'ont fait parce que dañoo bëgg Assane dañoo bëgg seen koñ xeexal leen tax a jóg du moment politique parce que nit ñi dañuy xaar ba politique jot rek ñu soog a ñëw di seet si population yi man nag comme dama bokk ak ñoom lépp ànd ak ñoom ci liggéey moo tax ma jóg teel a jóg di liggéey ak ñoom di diisoo ak ñoom pour xam lan moo leen saxal loolu moo ma taxoon ñëw nag gërëm gis naa mobilisation bu mag bi ñu fi def boo xam yaakaar naa homme politique musu ko am ci ci. ci biir dëkk bi di ñaan nag président de la yi nga xam ni yëpp xale yi def nañ ko fii mu jéem ci taxaw mu jël ñi nga xam ni ñoo war a yelloo ndimbal yi mu eggale ko ci ñoom di ko ñaan mu jàppale ñu ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy bëgg a def ak mouvement bi nga xam ñoo nekk fii ci dimbale jigéen ñi ci seen financement yi mi ngi koy def gaa mais defin bi moom laay wax ne nañ ko xoolaat. dañu fexe ba ndimbal boo xam ne dañ koy jubale ki ñi nga xam ne yàgg nañu liggéey dimbale leen ci seen xam-xam jox leen ko ci joxin bu yomb bu gaaw ñu mën ci liggéey delloo ko ecole yi aussi xale yi wax nañu fi vraiment état de délabrement bi nga xam ne moom fa xew lépp nag nekkul président ci maire yi la nee naa leen su ngeen di tànn seen i maire na ngeen ko xool bu baax maire dafa am solo parce que acte trois de la décentralisation dafa jox ay pouvoir maire du ne rek moyens yi ma état bi jox rek laa war a jël. da nga war a def sa sa koñ comme entreprise wuti ji alal bitim réew xam ay montage financier ñoo koy defee pour mën a dimbali nit ñi loolu nag soo ko bëggee am da ngeen di tànn ñoo xam ne dañoo jub dañoo xarañ jub mooy li nga xam moo ci njëkk xarañ ci xam-xam ak ci jàng ak seen diine daf ci am solo loolu suñ ko amee ci cees ñu àndandoo ak président de la République bi nga xam ne moom moo fi nekk jàppale ko ci liggéeyam mu jàppale ñu ñuy waxante dëgg kooku kenn ko defee dina am solo mais militant boo xam ne boppam su gisee président boppam rek lay wax. loolu moom moo indi indi problème mu Thiès ñi fi nekk seen problème mu bopp kese moo leen tax a jóg mais woo président nag mu xoolaat bu baax toogaayam ci biir Thiès tànn ñu fa la toog ñu en tout cas jóg nañu takk suñu doolee di liggéey ak population bi ah suñ su fekk see xëy na suñ su fekk suul dinañ xeex ba nga xam ne Thiès li fa la nekk moo fi nekk su soobee yàlla. bokk ngeen si ñu lu woon wii tey mel na ne am ngeen bëgg a xelal président. waaw ñun dañu koy wax ni que ñun ñoo voté woon acte trois de la décentralisation yéen ñi ñëwoon taataan sama meeting bi ma defoon ci temps wu euh, référendum bi gis ngeen ni que dama waxoon sama militant yëpp nga xam ne mat nañ ay junni junni ci biir cees ñu voteel wii bi ndax dimbalee jàppale président Macky Sall ci ki liggéeyam loolu nag bi biñ ko voté ba pare parce que dañ koo gëm du ne parce que dañ koy dimbale rek parce que ñun defuñu ko pour ay opportunité yooyu dañ ko def pour parce que liñ ci gisoon yëpp daf ñoo doy parce que au conseil bi. niñ ko bind ci kayit lu baax la mais tegin bi laa wax ne que président ne ko xoolaat bu baax a baax parce que déjà moom ci boppam am na quota boo xam ne may na ko mu tànn ay borom xam-xam ay nit ñoo xam ne gëstu na leen saytu leen ba ñu baax mu dugal leen ci biir ndax ñu mën a dimbale population bi mais pas mu nekk loo xam ne c'est des politiques politiciennes ne serviront pas à la population et qui ne serviront même pas à lui parce que les populations d'aujourd'hui